boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo aousubillah sabil alim min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والإتق من النار ولذلك قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن صهد منكم الصهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ba gën a sell nuyu ba gën a teey te mooy nuyu lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di jël nuyoo bi ak ziar bi yëpp di ko teg ci loxol Mawlaana Cheikh Mouhamadul Muntaqa alxalifatul aam li taifatil muridiya ayadahu llahu wa nasara yàlla ko yàlla dëgëral ci liggéeyu Seexul Xadim bi mu yenu ba àggale ko fi mu ko bëggee ci nam ko yéene ginnaaw bi nuyoo ñëpp ziar leen noo ngi jël ñëw bi ak ziar bi nag di ko teg ci loxoom di ko ñaanal yàlla taxaw ko ci liggéey bi ñu liggéeyal Serigne Touba ci mooy liggéeyal julli ñëpp di ko ñaanal mu yàgg fi te wér te bokk fi yàgg ak nun ndax lépp ay njariñ rek la kon xam ngeen waxoon nañu ñu ngi sant yàlla borom bi nga xam ni moo def weeru koor muy weeru yërmande di weeru njëggal di weeru goreel ci sawara xam ngeen ni loolu ab junj la ndax fukki fan yu njëkk yi yërmaande yàlla moo ciy wàcc rek di daj ñëpp rawatina jaamu yàlla yi nga xam ni ñooy julli di woor waaye fukki ci digg ba muy njëggal njëggal jaam ni topp yàlla te gëm ko seeni bàkkaar waaye ba ko fukki yi ci mujj nag moom mooy goreel ñi nga xam ne ñoo doon woor te ay jullit yàlla goreel leen ci sawara ba ñu set ci wecc yàlla moom nag moo wax ni maa farataal koor ci seen kaw mu aay bi ma junjoon sànq mu yaa ayyuhal lazina amanu kutiba aleykum siyam yéen ñi gëm yàlla lay waxal nag ñi gëmagul yàlla moom xitaab bi wax ji jëmagul ci ñoom ndax balaa la yàlla y teg benn ponk ci lislaam day fekk nga dugg ci lislaam ba gëm ba noppi moo tax moo indi yaa ayyuhal lazina amanu waxul yaa ayyuhan naas kon yaa ayyuhal lazina amanu kutiba aleykum siyaam farataal nañ ci seen kaw koor ni ñu ko farataale woon ci ñe leen njëkkoon a ñëw ndax ngeen jële ci ak ragal yàlla kon mel na ni natija bi nga xam ni muy résultat bi juddoo ci koor mooy ragal sa borom tabaraka wa taala nga xamee ni résultat bi jóge ci julli mooy dalay tere ay bon bon ak i ñaawteef ñu inna salaata tanha anil faxsaayi wal munkar koor itam gis nga lim daaneele aaya bi la allakum ndaxte la yéen tattaqoona ngeen ragal yàlla ngeen jële ci koor gi ak ragal yàlla kon képp koo xam ne sa koor def nga ko ca nanga ko war a defee ca anam ya mu laaj ak sellal ga mu laaj boo te génnee da nga ci jële ragal yàlla koo xam ne da ngay dëkk ak moom ba faw ba keroog ngay génn àdduna te loolu bénéfice mënu koo gën bénéfice mënu koo mag kooku nag mooy ki nga xam ne bu wooree lu def ay caaxaan lu def ay larax lu def lenn lu yàq kooram kooku mooy am ragal yàlla googu kon loolu mat a sàmmaale ci sa koor bu baax a baax xam ngeen ni koor suñ borom wax na ni dama ko fonk fonk ba alxuraan yi nga xam ne mooy suma jëmm wóotuma ci kaw suuf di sama taxawaay kooku maa ngi wàccee ci biir weeru koor boo delloo ci suurat inna anzalnaahu fi laylatil qadri da gis ni kon mi ko wàccee ci biir weeru koor waaye ci guddik laylatul qadri ci guddik laylatul qadri nag mooy jumla bi yëpp dañ ko wàccee ci baytul baytul mahfuus ci ci mahfuus te dañ ko wàccee alquran ci guddik laylatul qadri waaye ci détail bi nag muy génnee par aaya par aaya kooku nag Jibril tàmbali ko nag di ko génnee di ko indi ci yonent bi alayhi salaatu kon gannaaw biñ ko andee ci baytul izza jële ko ci lawhul mahfuus kon loolu mooy wàccee gi ci guddi lil xadri mooy wàccee gi ci biir weeru koor muy ak njub ñeel nit ñëpp waaye di biral lépp lu lëntoon moom alxuraan ak di teqale lépp mu wax ni nag weeru koor a ngi nii képp koo xam ne fekk nga ko ci yéen te mooy ñeenteel bi ponk ci ponk lislaam képp ku ko fekk ci yéen na nga ko woor na nga ko woor koo xam ne fekk na la feebar wala mu fekk la ci tukki tukki bu laaj nga koor nga bañ a koor waaye soo wooree moo gën ne bu loolu amee na ngeen feebar wala ngeen nekk ci tukki bu mel noonu kon moom fa iddatun min ayaamin uxar kon man ngeen bañ a woor waaye nag ngeen fay ko ci yeneen jamono ci yeneen bis ngeen demee ba wér mbaa ngeen dem ba dellusi ci tukki ba loolu nag li ko waral mooy yuridullahu bikumul yusra yàlla daa bëgg ci yéen ak yombal muy ruxsa bëggul lenn lu mu leen teg taklif yu diis gan yoo xam du ngeen ko attan wala da ngeen ci sonn lool yàlla du leen a yërëm ba du leen ko teg moo tax mu yombal diine waaye bëggul ci benn jafe-jafe bi ak benn xat-xat eh, bu ko defee yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra bëggul ci yéen jafe kon loolu mooy koor mbokk yi ñu ngi ñëw mel na ni ngi koy dugg si mel na ñoo ci biir sax kon loolu mat a bàyyi xel bu baax xam ngeen nikoor koor <clears throat> yàlla sunu borom dafa wax ni kullu amal ibni aadam lahu alxasanatu bi asri amthaliha ila sabi miati dixfin nee na jëpp jëfi doomu aadama borom la ñeel benn bu rafet bu mu def daañ ko fay fukk ba ci juróom ñaari téeméer waaye mu teg ca moom azza moom aji màgg ji te tedd ni ila siyam lay koor fa innahu lii wa ana ajzi bihi daal ni ba mu des koor koor moom maa koy fayal sama bopp te la ma ciy fay ëpp na loolu ñu ko lu tax mu ne ki woor taraka sax watahu dafa bàyyi bànneexam bàyyi ay ñamam bàyyi ay naanam ngir man yàlla rek moo tax kon loolu moo tax kon bàyyi say lekk bàyyi sa bànneex bàyyi say naan ngir sa borom loolu dafa am solo lool moo tax ku ñu wax abi amaama radiyallaahu anhu ne dikkee naa yonent dikkee naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee ma wax ko ne ko waaw damaa bëgg nga digal ma jëf joo xam ne dina ma tàbbal àjjana mu ni ma maa ngi lay dénk kon maa ngi lay dénk ngay woor ndax woor daal gisuma lu tollook moom gisuma lu tolloonteeg moom gisuma nawleem lu tolloonteeg moom loo ko nawloonteel rek loola koo moo koo a kopp ngëneel moo kopp doole nee na ma dikkalaat ko ñaari yoon dellu waxaat ko ni ko dama ba nga digal ma jëf ji may tàbbal aljana nee na mu ne ma maa ngi lay dénk woor maa lay dénk woor ñu ne noonu laa ko def ba muy ay yoon moo tax ñu ba tey ci abi saydin alxidri radiyallahu anhu mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ab jaam du woor mukk ngir boromam tabaaraka wa yàlla soril ko ca bis booba mu woor benn bis bu nekk yàlla soril ko ca sawara soril ca kanamam sawara ak gémmum juróom-ñaar fukki nawet doxub juróom-ñaar fukki nawet koo xam daal distance ba nga dox sa diggante sawara nu mën a toll sawara soril na la sawara lu toll ci juróom ñaar fukki nawet juróom-ñaar fukki nawet nag mooy juróom-ñaar fukki at kon benn bisu koor bu ni mën a sori nit ki sawla noonu la guddee noonu la yaatoo ba tey saalub nit jëlee na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi wax ko ni ko koor ak jàngal xuraan dañuy ràmm nit ki ëllëg yowmal qiyaam dañuy jàpp ci loxoom ñaan suñu borom mu may leen ñu romb ko tàbbal ko àjjana muy koor ak jàng alxuraan mu wax ko ni koor koor daal di suñ suñu ni ko cëy yow sama borom maa ngi lay ñaan li tin waa ji ma àndal ndax maa ko teewoon na lekk ay ñamam bëccëg maa ko teewoon na def ay bànneexam ci bëccëg ba kon nag nag ma tin tey ci moom mu dem na su ko dee suñ borom ni ko tin naa la ci ndax yow koor loo ma ñaan ma jox la ko su boobaa alxuraan ñëw moom itam ni ko ah, maa ngi lay jéggul di tuub di tuubal di ñaan nga may ma ma ràmm kii nga xam ni daf ma daan jàng rek di ma durus rek ba bëccëg kon nag fa safi nii fii su ko dee suñ borom daal neen ñaar yow koor ak alxuraan may naa leen am ramm ci seen waa ji nga xam ne da màggal weeru koor di ko woor waaye da daan julli julli ji daan naafila guddi di ko fanaane mbokk yi nañ xam ni koor yemul ci lekk ak naan nit day tàmmal boppam tàmmal ay cëram wattandiku lépp lu yàlla tere waxuñu mu nag ba koor ñëw mu door ko koy tàmmal waaye da koo ta da ko war a tàmmal ci waxtu wu ne bu koor gudd tàmmal say loxo duñ laal mukk jàmbur bu jigéen tàmmal say loxo duñ sàcc tàmmal say loxo duñ laal alali jàmbur tàmmal say bët duñ xool lu araam tàmmal sa bopp damm sab gis waaye nga tàmmal saw làmmiñ làmmiñ li mën a yàq bari na incha allah dinañ ñëw ci waxtaani koor yi ndax lu ci am solo la ndax li mën a yàqal nit ki ci koor koor dafa metti ci marwa ak xiif ba ak maanu ga ak sàmm sa cër ak yépp waaye lamiñ mën naa ñëkk ñëw rek yàq lépp borom ñàkk du am ca koor ga dara lu dul xiif yàlla ñu musal loolu tax làmmiñ jara bàyyi xel bu baax ci koor jara bàyyi xel kon moo tax sëñ Tuubaa wax ni na xam ni koor moo gën ci lépp loo xam ni nit kaa ngi sàkkoo mu nit ñaa nit kaa ngi cay sàkkoo ngërëmal lépp doomu aadama bi jël li ko sàkkoo ngërëmal yàlla sëñ bi na koor moo ci gën amma siyaamu fa huwa min afdali ma fa talabta mardaatan bihi wa ni'ama daal wax ni li anna fil jannati baaban la yaqib fiha siwa ahlu siyaami fahtasib ne am na ci àjjana bunt boo xam ne kenn du fa tàbbee lu dul nga xam ne ñoo doon woor mel ne daal buntub teraanga la ak tedd nga boo xam ni lay mel ni moo gën a màgg ca àjjana gën caa rafet ñu ràññi ko lool kenn ku nekk xemmee ma jaar ci bunt booba ak yu neex ya fa nekk ñu lay gàttandoo waaye suñ borom ne ah taxaw leen nag bunt bii moom gaa yi daan woor dong nag ñoo ko ñoo ci jaare pour lu ñoom doo fi jaar kon mbokk yi loolu mooy taxawaayu koor nan xam ni fa sawmu an yasuuma kullu odwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi woor mooy cër yëpp woor cër yëpp woor bàyyi lépp loo xam ne xëcc nit ki di ko yóbbu ci bànneex say tànk bu mu dox sàcci say tànk bu mu dox rambaaji say tànk bu mu dox dem def loo xam ne yàlla da ko tere ak lu mën a doon lépp lu sa tànk bi jóg loo jóg jël sa tànk bi di ca dox na fekk loola nekk loo xam ne da ngay xettali ji ab jullit wala mu nekk loo xam ne da ngay ji ab diggante wala mu nekk loo xam ne da ngay sàkku ci ngërëmal yàlla noonu mooy tànk bi li nga ci war a dox ni ngay téye sam pay ba doo ci sa soxna ca bëccëg ba wala yu mel noonu waaye ni ngay téye sa biir bi ba doo ci dugal aw ñam boo xam ni bu mën a doon ndox bañ a dokk noonu ngay téye sa mboolem cër ba ci sa noppi sax danga koy téye boo jëwul itam yow doo déglu koy jëw doo déglu kuy wax ci derub jàmbur dara yooyu mooy juróom-ñaari cër nga xam ni doomu aadama da ko war a sàmm waxtu wu waaye ci weeru koor la rawee rawatina nag démb jooj yi ñuy wax làmmiñ su ko defee koor am ay ngëneel mu bokk ca xiyaamu lay taxa taxawee julli guddi ci koor lu am solo la fa inna li xiyaami layli saanun azimun inda allahi azza wa nañ xam ni julli guddi dafa am mu rëy dayoo bu rëy taxawaay bu mag fa suñ borom tabaraka wa taala fa afdalu salaati baadal faridati salaatu layli julli gi gën ci julli gannaaw julli yi farata yi mooy julli guddi bokk na ci ay masaayam ay mayam ni moom du kafaara ay bakkaar yam ci kepp waaye lam ci tegaat dafa bari dana kafaara say bakkaar di ko far di ko far ba mu set wecc moom julli guddi waaye du yem ci loola kese day mujj tere borom dox di gëm ak tàbbi ci bakkar ki yàgg julli guddi julli guddi day raxas ay bàkkaaram yu masa am ci kaw suuf ba mu set wecc weex tal man a yëg ci maqaama ay gaa yu baax ya waaye daf koy tere nag tay tàbbi ci bàkkaar ku saxal julli guddi da ngay dem ba duutoo mën a def bàkkaar soo ko bëggoon sax doo ko mën nga ngir muy lu mel ni liñ ci abu amama albahiliyu radiyallahu anhu ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ni wax na ni maa ngi leen di ngi leen di dénk ngeen di julli guddi ndax mooy aaday gaañu baax ña mooy aaday gaañu baax ya inna min daabis saalihiina qiyaamu layli maanaam bokk na ci aaday gaañu baax ña di julli guddi li tax nga xam ni ku nar baax yàlla da koy waajal ci ak ndawam mu teel a tàmm tàmm lu jëfi gaayu baax ya di ko def te fekk booba sax togguñ ko jëf ndaw lay doon moo tax imaam Muhammadul Busiri waxoon ni ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tàmm gum teel a tàmm jaamu yàlla ak beru ak wéetal boroomam te booba sax togguñ ko jëf mu ne àllifa nuska wal ibadata wal qal wata tiflan wa hakaza nu jabaahu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ku miinoon jaamu yàlla la topp yàlla waaye ku miinoon topp yàlla la waaye ku miinoon jàmm yàlla la def ay sacrifice sarax boole ko di jàll di jàmm yàlla waxtu nekk waaye mu boole ci li ñu tuddee alxalwa muy wéetu di gëm ak boromam ci barab di xalaat rek di gëm yàlla gis nga xaaru Hira montagne ba ak yooyu fa mu daan dem di beru eh, te nee na booba xale la tëflan ci ngone waaye mu daal ni wa hakaza naka nii daal lay mel nu jaba anu jabahu tànnee fi suñu borom yi tabaraka wa taala gaa yu baax xam ngeen ni ba demee ci taarixu Sëriñ Tuubaa ci histoire am rawatina téere bi ñuy wax Minanul Baaqil Qadiim bu doom ju tedd ja di Seex Ahmad al Basiir ca gis mu wax ni soxna jaaratullahi Maryaama bu som bu baax ma te daan dajale ak njabootam di leen waar li leen andil ay xadis yu am solo yu defar jikko bokk na ca benn bés te bu leen masaan dajale sëñ di radiyallaahu anhu da ci nekk da cay nekk da cay bokk nee na benn bés mu dajale leen di waxtaan ak ñoom di leen nettali ay xadis ba wax ca ni inna min daabi saalihiina qiyaami layli daal di cay wax xadis boobu wax ni bokk na ci aada gaañu baax ña ak seenu tàmmeel di julli guddi bi sëriñ bi déggee loola ci at moo xam ne at mu ndaw la àggagul sax ci atum xamlu jàng waxuma la nag sax atum ñu koy togg jëf muy nekk mu kal waaye boobu jàng sax àggagul tim atam waaye ba mu ko diggee rek ci waajal ko ko yàlla waajal teel ko waajal ci def lu baax ci xolam ak xelam dafa daal di tàmbali bu guddi jotee muy dem di taxaw ci jullikaay ba di julli ba léeg-léeg dañ ko duñ ko gis sax ñu ko wër ba fekk foofu kon gis ngeen ku nar baax ñu ko yàlla waajale ca ak ndawam ñu ngi koy waajale ca ak ndawam kon loolu gis nga julli guddi dayo bi mu am ak taxawaay bi nga xam ni moom la am kon yonent bi nee na ko alayhi salaatu salaam bokk na ci aaday gaa ñu baax ña yokk na ko ci li muy far say bàkkaar boole ci waaye nee na ko dooli dooli na ca nekk xurbatun ila rabbikum maanaam jëfi jaamu yàlla joo xam ne lay lay yëgal sa borom tabaraka wa taala moom julli guddi waaye ba tey nekk na loo xam ne day far say ñaawteef dalay tere bàkkaar day tere bàkkaar yii yonent bi limoon na ko ci julli guddi bokk na ci alal gaa yu baax yi moom julli guddi jëf yi jegeñ yàlla la juy tax nga jege sa borom waaye luy far say bàkkaar la waaye lu lay tere dootoo def bàkkaar la kon julli guddi jar na lu nekk yonent bi alayhi salaam daana taxaw guddi di julli di julli di julli ba tànk yi metti mu julli di julli ba tànk yi new yi ba ni gërëm toll ne ak gën ñaari ñaari tànkam yu si tedd yi ndëggul tànk yi ak yeel yi léppay new yi am ku ko wax ni ko waa yow yonent bi alayhi salaatu salaam coono bi lu ko jarati ci yow yow sa borom nee na la jéggal na bépp lépp luy nuru bàkkaar te nga mas koo def jéggal na ko tey da jéggal la bay ñëw boo waroon a def te mu ñëw bu paree boo woon ba noppi ñu sëñale boole ci ngay ab yonent doolaal bàkkaar doo ko def ana looy sonalit sa bopp mu ne afalaa kuuna abdan sakuran mu ne ndax kon du ma nekk jaam buy sant yàlla man kay bi ma demee ba yàlla defal ma loolu waratuma nopp lu guddeeg bëccëg ngir di ko ko sant ngir di ko ko sant kon ab jaam taxawaay boobu lay taxaw lu ay martabaam gën a yokku mu gën a faral ci jaamu yàlla moo tax gaa yu baax ñi ku la ci gën a rëy martab rek moo la gën a sonn ci jaamu yàlla ndax lu ko yàlla gën a defal teraanga mu gën a yokki jaamu yàlla am lu yàlla gën a yëkkati martabaam mu gën a yokk ay jaamu yàlla kon loolu mat naa bàyyi xel baax a baax sahabatu rasul ridwanullahi alayhim xam ngeen ni ñu teewoon badar ñëpp bañ jógee badar la yonent bi wax alayhi salaatu salaam ni xalima bakkaar wàcc na képp ku teewoon badar nga xam ne kon booba suñ doom ñenee na mën nañoo sabantal jàmm yàlla moo yàlla yi aliyaasu billaahi yi ñu tere ñu daal di cay dugg ndax ndeem moom kenn dootu leen bindal bàkkaar rek kon buñ doon ñeneen dañuy daal di wax ni lu neex nañ ko def waaye keroog lañ gën a sàmm gën a dawlu yàlla tere keroog lañ gën a farlu ci jaamu yàlla ak toroxal seen bakkan ak not ko ak ñàkk nopp lu guddeeg bëccëg kon loolu mat bàyyi xel bu baax kon jamono yàlla yokkee sa martaba nga yëg ko na gën a góorgóorluwaat ci jaamu yàlla gën a góorgóorluwaat ci jege sa borom gaa yu baax yi day loolu mooy mooy seen jikko moo tax suñ borom nee na aman huwa qaanitun anaa layli saajidan wa qaa'iman yaxdaru laaxirata wa yarju rahmata rabbihi ndax ki nga xam ni day taxaw di jaamu yàlla di dellu suñ borom ci waxtu guddi yépp di sujjóot di taxaw di rukkoo di xalam fanaane ko bët set di wattani ko àllaaxira ragal ko di yaakaar borom ndax dana yem ki ko dul def déedéet dañu yem mukk mukk mukk mukk yem mukk mukk mukk ci àdduna loolu moo tax bàyyi xel bu baax moo tax eh, aaya boobu bi mu wàccee xaala ibnu xaatim way nama xaala ibnu omar li kasrati salaati amirul mu'minin Usmaan bi layli wa qiraatuhu ata ata annahu rubbama qaraa alqur'ana fi rakkatin nee na aaya boobu bi mu eh, wax na ni Usmaan ibnu Affaan la radiyallahu anhu ku ñu ibnu Hatim nee na Omar radiyallahu anhu wax na ni Omar la ibnu Omar am ñu wax ni ibnu Omar la ngir bari gi mu bari ay julli waaw kon loolu mat a bàyyi xel bu baax am na ko wax kooku de Ousmane Ibnu Affan la ngir bari julli goo xam Ibnu Affan da koo bari ay julli waaw dafa wax ni Ousmane Ibnu Affan Abdoulaye Omar moo ni aay bii de Ousmane Ibnu Affan la ko tax a wàcc ñu ni ngir lan mu ne li kasrati salaati amiril muminin ngir bari julli goo xam ne buuru jullit Ousmane Ibnu Affan la ko bari lu muy julli guddi ak jàngam alxuraan ni mu baree ba sax baraana léeg-léeg Ousmane balaa guddi gee jeex dana ci naafilaa alxuraan jëpp ba alxuraan jeex te xam nga ni ñoom niñ ko daan jànge dafa yeex am jàng kon noonu la ko daan jànge kon la mel ni eh, dañuy taxawlu foofu ci émission bi waxtaan wi mu cëppoon li ci solo koor ba ci julli guddi ci koor ni mu amee solo xam naa waxtaan wi ñëw ci lañ koy sofaat rek tàmbale waat ko ci àggale julli guddi julli guddi boobu loolu caa teg nag e, sarxe ci weeru koor ak dundale ak dogal ko koor ni mu amee njariñ incha allahu waxtaan wi ñëw ci loolu lañ koy wéyal ñu ngi sant ñëpp leen gërëm seen mbokkum taalib bi mu ñuy wax sëñ Mouhamadou Diaw xóotu xulóob moo leen loolu defal seen émission bi ñuy tuddee xóotul xulóob ci e, site istiqaama asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo